fii ci gouvernance bu Louga la ñu amalee CRD di comité régional de développement ngir waajal màggalug Mbàkke Kajoor gi mboolem kilifa yi nga xam ne teewoon nañ ci ndaje mi ci njiital gouverneur bu région bi jël nañ mboolem matuwaay yi nga xam ne moo jëm ci màggal gi léegi ngir lenn bañ ciy sooxee. te incha allah laata tamit euh, wàllu journée de nettoiement bi comme li ma ci wax rek dañ bëgg aussi tamit ren mu xaw a wuute ak daaw comme ren aussi am nañ nañ benn service boo xam ne ñëw na ay ak ay matériel taxaw ba baax baax pour lépp aussi mën a mën a antu matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci fànn yëpp gouverneur bu région bu Louga ñaaxaar na ñi nga xam ne ñoom ñoo di chef de service yi ngir ñu nattaat bu baax a baax laataay màggal gi mboole matuwaay yi fan lañ ciy toll. loolu daal mooy vraiment engagement bi nga xam ne aussi les services de l'état jël nañ ko ñu a assurer la coordination tamit et le et le te incha allah tamit jàpp naa ni li ñu defoon daal en 2019 dak dak boo tolante en 2020 mas bi mas bi ñëw daal koy xaw a yàq incha allah ren moom dinañ ko àggale waaw dinañ ko àggale bu baax a baax xool sax ni mooy engagement yi nga xam ne mooy service de l'État yi jëlañ ko fi. comité d'organisation bu màggal Mbacke Kajoor bi nga xam ne Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom moo ko jiitee ak mboolem commission yi nga xam ne ñoom la ci àndal kilifa yi santaat nañ bu baax a baax rafetlu mbooleem matuwaay yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko waaye sant état bi ci réalisation yi nga xam ne def na ko ca Mbacke Kajoor. bii mooy ñaar fukkeelu CRD ak ñett yoo xam ni man maa ngi koy jiite di ko assisté fii ànd ko sama mbokk yu baax yi samay mag samay kilifa waaye booba ak léegi gis nañu ni saa su ñëwee dafa yokk waaye dara mosu cee wàññeeku mosu ñu fee wax dara lu mën a nekk it nekkul kon loolu ñu sant leen ci gërëm leen ci wax naa ko préfet keroog ci CDD bi bi màggal gi weesoo daaw dañoo amoon ñetti yëf yu nekk Mbàkke Kajoor mooy fara forage bi nga xam ni ndox mu neex la nekk xam na dafa panoon te panne bi mooy fokk ñu ko gasaat forage brigade bi nga xam ne moo nekk foofu moom it àggul woon centre social bi nekk foofu àggul dama bind dama ko bind lettre ci turu sëriñ bi bi ma ko yónnee ba noppi ma woo Sarmé ni ko kaay téye copie bi ndax ëllëg mooy tax ni ko dama dañu bëggoon ñu àggale yooyu brigade ba àgg na forage ba àgg na kon loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm sëriñ bi ñaaxaat na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe ñu sàmmonteeg mboolem matuwaay yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy jël ci li nga xam ne moo jëm ci jàngoro yi. su ko defee santé itam ñu gën a jàppante waxtaan ndax euh, léegi damaa wax gouverneur ni ko yow yaa wax ni taux dafa moo gën a euh, faible ci euh, arrondissement Darou Mousse dama wax gouverneur lu tax loolu mooy ñi am cadre rek ñoo fi dëkk de da ngeen di ñëw jigéen sëriñ si waxtaan ak ñoom. wax ak ñoom ñu joxe ndigal xam ne lii njariñul ñëpp la ndax gis nañu ne ñàkk yi ñi ko def ñooy gën a am jàmm ci ñi ko deful ndax gis nañu ni su amee téeméer boo xam ne dafa am Covid bi juróom-ñett fukki bépp wala juróom-ñaar fukki bi ñu ñàkk ñàkk ñàkk ñoom lay dal kon dafa mel ni ñàkk yi baax na ci kon su ngeen ñëwee ci màggal gi du forcé képp koo xam ni jàpp nga ni li yow sa xel may na la nga def ko ñu waxtaan yow ndax nga def ko ndax jàmm jàmm am ndax jàpp nañu ni vaccin rek moo ñu mën a musal eh, ci mbas mi su ngeen gisee nag jamono ji kenn amul jot kilifa yi toog chef de service tëj seen ay bureau ñëw toog fii dafa am loo xam ni mooy tax màggal gi jag ni ñu ko bëggee ñu xam ni bu gendarmerie toogee fii eh, sapeur pompier toog fi lu mel waa service d'hygiène toog fi nga xam ni dafa am ay liggéey yoo xam dañu ko war a liggéey mooy xool lépp loo xam ni lu ñu warut jëfandikoo la ñu tere ko loolu nañ koy moytu. màggaluk Mbacke Kajoor di bés bi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke moom Serigne Touba gane woon àddina ci atum 1883 dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci jumaadal ola ren jii mu war a dëppook le 2 janvier 2022.